برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، ورضي الله عن قطب المكتوم أين الكتمية والختمية مولانا شيخ إبراهيم نس مولانا شيخ تجاني رضي الله عنه وجزى الله من من هو سره ومظهره أبدا مولانا شيخ إبراهيم نس نفعنا الله ببركاتهم آمين ñu سانتي sant جولي julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di tàmbalee sunu waxtaan wi nga ñu bari ñu ma ci interpellé fan yi yépp muy xadaratul juma bi nga xamante ne amoon na ci ajuma bi passé la 14 ci esplanade stade de l'amitié ay kilifa déplacé woon fekkee ko mu mujj jur ay polémique ak ay werante ci internet bi ba ay ŋàññante am ci ay sànnante ay kàddu yoo xamante ne mën naa ne jaru ko woon ma ci wax ay wax yoo xamante ne du dara lu dul indi ci ay éclaircissement yoo xamante ne mbokk taalibe yi danañ ci mën a jëriñu te sama wareef la nag su fekkee ne waxtaan wi teg nañ ko ci dëgg wala bugg nañ ko teg ci dëgg pour gindi jaami yàlla yi ñun ñëpp dañuy dem ci facteur yi nga xamante ne moom moo dégg nga lié doomi aadama yépp su fekkee ne dañaa jote wala ñu am réeroo seen biir bu fekkee ne bëgg nañu doxal dëgg dañuy dem ci facteur yi nga xamante ne moo ñu boole mooy lan raison maanaam xel maanaam li xel nangu bu doomi aadama yi di werante nañu deew ci li xel nangu ñu mën ci saxal liñ bëgg a saxal wala dàq ci liñ bëgg a dàq su fekkee ne nag ñun jullit ñi la ñu werante ci mbir ñu nit li ñu war mooy delloo ko ci facteurs yi nga xamante ne muy alxawas al mushtaraka yi nga xamante ne moo lié mboolem kuy julit ci àdduna bi bi ci jiitu mooy alquranul karim ak ahadis yi nga xamante ne ñoo wàcc dégg nga jógee ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran ak ahadis yooyu jur ay téere muy mutun yi nga xamante ne mooy delluwaayu jullit ñi ci seen diine facteur yooyu lépp lu ñuy saxal ci islaam baa ñu koy dàq foofu lañ koy jëlee loolu moo dal tamit ñun tiijaan yi bi xadaratul jumaa bi am polémique yi bëri werante yi bëri li ñu war en tant que tiijaan ñun ñëpp ñu tam ñu delloo ci facteur facteur yi nga xamante ne muy al alxawaas al mushtaraka yi nga xamante ne moom moo lié mboolem kuy tiijaan ba lépp lu fi am ci lu ñuy werante dañ ciy dellu lépp lu ñuy saxal ci tariqa bi wala ñu koy weddi tamit dégg nga dañuy sukkandiku ci loolu noonu facteur yooyu nag awalan mooy Seexu Tijaani tey bu fekkoon ne mu ngi dund dañuy dell ci këram mu gindi ñu nekkatu fi waaye bàyyi na fi ay waxam muy téeréem yi bàyyi na fi ay leetaram yoo xam ne dafa aju ci dundam ci tariqa bi waaye bàyyi na fi téere yu bari ba ci munyatul murid buxyatul mustafid ifaadatul ahmadiya dégg nga fatxu rabbaani nga ak yeneen yeneen yoo xam ne aju na ci téere yi kasful xijaab bu sukayri téere yi nga xam ne nangu nañ ne facteur la ay facteur lañ ci tariqatu tijaniya li ma bëgg wax ci lañ ciy sukkandiku bu fekkee ne dégg nga teg nañ ko ci dëgg xadara bi nag li ma ci njëkk a wax mooy li Cheikhu tidiane wax ne mulaqaatul ixwaani xayrun min al adkaari ah wal awrad daje gi tidiane yi di daje xayrun mu ne lu gën la gën na ba gën mboolem zikku zikkar individuel yi nga xamante ne ñu ngi koy def ak lu mën a doon rek Cheikhu Tijaan nee na daje gi Tijaan yi daje moo gën bu fekkee ne xadara bi passé nag ci lu gën la te lu gën kenn du ko def safaan di ci juddoo walla lu gën kenn du ko def dégg nga nit di ci xalakoo munta nekk boo demee ci jaay rasail Cheikh Ibrahim Niass mu ngi ciy indi ci li nga xamante ne mu ngi aju woon ci tariqa bi wala ci xadaratul juma bii nga xamante ne amoon na semaine bi passé la quatorze du woon dara lu dul daje yoo xamante ne ci tariqa bi la te bàñes nee na daje ci tariqa bi du sart lu dul li nga xamante ne farata la ci biir tariqa bi te aju ci defee ko ci mbooloo looloo ñu indiwaat waaye bu dul woon loolu xam nga ne képp ko xam yàlla soxlaatoo dajeeg mbooloo waaye nag dafa am farata ci biir tariqa bi ci mbooloo rek lañ ko mën a defee moo tax Cheikh Ibrahima Niass wax ne fa inna baadu ijtimaati diiniyati wa tariqati asirru fiha ilqaaxu lmuridina wa in waqaa fiha atna shucuuba fi nnafsi walhawa ولم يزجر صاحبه ويرد, ويرد إلى الحق أفسد كثيرا من سر الاجتماع لا سيما إذا صدر من نحو كبير مثلا ولو كان مثقال ذرة قد خولنا في الأسباب لم واخ wax اخني wax ne te lii dafa aju ci xadara jumaa bi bàyyi mu ne dajeg diine yi secret gi ñu ciy dàq mooy ilqaaxul diina wàllante gi ñu nar a wàllante ci ay may ay tëbbu dégg nga ba kenn ku nekk bi muy ñëw bi muy ñëw gëm na ne nekkul ne mooy ki ñëwoon li ko soppi nag mooy barkeb jotaay bi te Seexu Tijaani daan wax naan dégg nga dajeeb ponkalu tariqa bi dégg nga secret da cee nekk te loolu noonu cheikh ibrahim ñes dafa wax ne walaw lam yakun fiha illa quwatu ladwa bi barakati ijtimaina kafa la kafa cheikh ibrahim ñes neena dajje daje yi ñi daje ci tariqa bi bu ci dara nekkul ludul dul doolay wàllante gi kesse lañu jural mu ne doyna soxla wuñ fa sax ay discours wuñ fa soxla wuñ fa jël dars bayne nee bu fekkee ne daje bi amuñ ci dara rek dégg nga tëbb doole yi wàllante gi gaa yi wàllante ci xoolante comme que monaat rek kay xool doomam mu dund mu mu tëb tëbb ko nampal ko mu suur sàkkantumaa doomu aadama kon bàyyi nee na bu fekkoon ne xadara bi amuñ ci dara wala daje yi ñuy daje amuñ ci dara lu dul tëbbante wàllante googu bu fekkee ne loolu rek lañ am ci jotaay bi ñu jóg ñibbi bàyyi nee na doy na sëkk te alhamdulillah ñi ëpp ci mbooloo mi daje dégg nga jotoon nañ ngëneel googu ma ci waxaat beneen wax joo xamante ne mooy suñ kilifa yi toogoon awalan cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ñas fekkee jotaay bi sheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim ñas fekkee jotaay bi Khourayshin Denga ñas fekkee jotaay bi cheikh Mouhamadul Makki fekkee jotaay bi Denga cheikh Mouhamadul Munhamina ak seeni rakk. jóge ba Medina Baye fekke ci jotaay bi dëgg-dëgg ñu gis ne Medina Baye déplacé wu na ñu xam ne esplanadu amitié boobu tey soppi na pàkk ci pàkk yi Medina Baye bi nga xamante ne waa ji wax na ne ñoom ñëpp déplacé wu jógee Medina Baye Medina googu nga xamante ne wuli yàlla bi daan na wax ne xifir roboo ladal Medina ta fajami ma tahwa fi dhaka marba'i Denga nga yow denga ba sa xel daj medina bàyyi ngay ut sa digganteeg sa borom war ngay ut lu gën ci sa dund ngay xalaat ba mu daj medina bàyyi nee na ko taxawal yow mi dox ak sa tànk di wër di ut lu gën ci sa wala sa teks sa borom ba sa tànk dugg medina bay taxawal fa jami'u ma tahwa fi dhaka al marba'i lepp lo doon ut ding ko fekk ci pak mu ndaw bob muy medina bay fofu nak bu fa gaa yu joge déplacer wu ñew dakar soppi dakar soppi amitié soppi parcel. muy pak ci medina bay lolou lu mën a la ndax ma thawadal aqtar illa rijalaha wa illa la fadla li turbatin ala turba borom xam-xam yi nee nañ suuf mënta gën moromi suufam pàkk du gën pàkk waaye ña dëkk sa pàkk ba wala ña feeñ sa pàkk ba wala sa ña teew sa pàkk ba dana tax pàkk gën pàkk kon esplanade boobu tey ñu defee loolu dëkk-dëkk pàkk la woon ci pàkki medina bay ndax ña teewee woon loolu ma am rafet njort gu leer nag gu ma doy sëkk ci ña teewee woon jotaay ba muy doomi mawlana cheikh ibrahima ñas yooyu ci góor ñi ci jigéen ñi mu wér ba ne la doon déplacé alaaj ibrahima ñas tij tax kaa jëm ci taalibe yi looloo leen yëkkate woon ñu jëm ci taalibe yi loolu lan la baay moo wax ne inni la ajidu lazatan fi qalbi illa bi mujalasatikum aw ru'yati tal'atikum almubarakati li istighraqikum fi llahi wa fi rasulihi wa fi shaykhi wa sirrihi istighraqan kulliyan hatta amaytum wa thammamtum an ru'yati alghayri walghayriya cheikh ibrahim ñas moo wax ne man amuma benn bànneex ci jëm ci taaliba yi wala toogaaleeg taaliba yi wala bëgg leen a gis maa ngi ci sama xol bi lu dul xam gi ma leer ne ak tëll gi ngeen di tëgl yéen taalibe yi jàkkaarlook man seen tëll gu barkeel googu ci xam gi ma xam te mu leer ma ci jeex gi ngeen jeex ci yàlla maanaam lab gi ngeen lab ci yàlla lapp ko ci yonantam lapp ko ci seexu tijaani lapp ko ci sirru seexu tijaani lab goo xamante ne dafa mat sëkk ba desee leen dara gumba ngeen mujj tëx lu ci gisanteel gisu leen dara lu dut yàlla maqaama boobu di nekk ci yéen moo tax man bàyyi may am mbégtey bëgg a dajeek yéen te wér na ma ne looloo yëkkati woon cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ñas moo yëkkati woon cheikh Mouhamadul Mahi ak seeni rakk ñu ñëw dajeek mbokku taalibe yi tey dégg nga kon te loolu mooy alima xaaliqi bi anna safari ma fihi xuzun min xuzuzi albasariya alqaytu kulla garadin an dubri wa jitu asyaaqan safaw an kadari wax jooju cheikh ibrahim ñis mu ngi ko doon wax ci tukki gànnaaram ga ba seytaane yi daan gis bàyyi ci tukkeem yi yaakaar ne leneen la lu duhut yàlla cheikh ibrahim ñis daan leen xamal ne alima xaaliqi bi anna safari ma fihi xazun min xuzuzi albasariya sama tukki yi may tukki di jëm ci mbindeef fii di jëm ci taalibe yi cëri bakkan topp ma ci lu araam waxuñ ko waaye li ci dagan sax man bàyyi taxumaa jóg ñu ne ko bàyyi lu tax mu ne fa inni muqdaamun daa miqdaamun ala kulli mustahan lépp lu nit di bëgg di ko ma rek ci kaw kawnu bi man jiitu naa ci man bàyyi mu ne wawaanin anta atin afqara muflisun man daal ki ma jaaxal ki ma yërëm mooy ki nga xamante ne mu ngi sàgganee jaamu yàlla moo tax Cheikh Ibrahima Niass si lakka ka daan yëkkati man gëm naa ne moo yëkkati doomam yi dégg nga bañ feeñ keroog ca xadara jumaa bi fekk ci ay taalibe yoo xamante ne laab nañ ci gàkk-gàkk muy muqaddami baay yu mag yooyu nga xamante ne ñëpp leen xam ci xidmal Cheikh Ibrahima Niass seen naa fa keroog Cheikh Sang Babacar Ndiaye see ko Sang Ndiaye seen naa fa keroog dégg nga euh, Cheikh Mamoun Essa seen naa fa keroog dégg nga Cheikh Jim Ndiaye bu kaymoor seen naa fa keroog Jeng Sala Baay seen naa fa keroog sa Ahmad Ba ci xam-xamam seen naa fa ponkal yooyu nga xamante ne kenn ku ci nekk sa génn yombul ay xut daamu Cheikh Ibrahima Niass lañ ñu dajeeg doomi baay yi siq taalibe yi nga xamante ne la ñuy def ba bañ fay jóg jaamu yàlla la maanaam xoor kanamu walu yàlla jaamu yàlla da cee nekk sunna la xool sa kanamu way jur sunna da cee nekk te way juru maanaa ak way jur zahir ñoom lañ doon teg bët xool xar kanamu boroom xam-xam jaamu yàlla cee nekk dégg nga te mbokk ña fekkee woon jotaay bi jàkkaarlook seen kilifa yi lépp luñ fa defoon sunna la te loolu ñu dolli am luñ ci dolli muy ñëpp di jàng salaatul fatiha ñëpp yëkkati fa jawratu kamal te loolu fuñ ko yëkkati yonentu yàlla muhammad mu ngi fa ci jëmmam mu fa ci sirroom dégg nga mu fa ci xam-xamam loolu yàlla mayee ko ci jotaay bi loolu rek doyoon na ci jotaay bi rawatuna ak Mouhamadul Xaafis wax ko nga xamante ne kilifa ci tariqati tijaniya moom wax ne almuraadu dégg nga almuraadu dégg nga bil awraadi tijaniyati dégg nga thamm raihatu xaqiqa al muhammadiya Mouhamadul Xaafis nee na li ñu bëgg ci wirdu tijaan du dara lu xencu xaqiqa muhammadiya te bés boobu tey yëkkati nañ fa jawatu kamal dégg nga wazifa nañ fa te yonent bi nee na fu ñu wazifa maa nga toog ku ne war naa dem fekk ci jotaay ba ndax xencu xaqiqal muhammadiya xanaa nga am ngànt moo tax man jotaay bi gisuma ci luñ ciy corriger gisuma ci luñ ciy ŋàññ ci zaahir nag ak ci baatin loolu nag ci boppam yàlla wax na ci lu wér ci jotaay boobu keroog mooy lan wax na ci dégg nga ci aaya boo xamante ni dinaa ci ñëw waaye yàlla wax na ne qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi zalika fal yafraxu huwa xayrun mimma yajmauna yàlla def na yonent bi demal nga ne gaa yi yàlla ak yërmandeem ci loolu lañ war a bëggee te moo gën ci liñ war a daje te jotaay bi keroog dégg nga ci esplanade amitié boobu billaahi gëm nañ ni ci ngëneelu yàlla ak ci ngërma ak ci yërmandeem te ngëneelu yàlla ak yërmande yàlla mooy jëmb yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yaakaar naa moo fa dajale woon nit ñi te yàlla ñëpp bég ci loolu te yonent bi yàlla xamal na ko ne kuy jullit ci loolu nga war a béggee ma ciy teg tamit benn jaamab yàlla boo xamante ne mina taabiina muhammad ibn munkadir mu ngi bokk ci saxaaba yi topp ci ginnaaw yonent bi mina taabiina taalibeem yi dañ ko mas a ne ko ما بقى من من لذة في هذه الحياة فأجابهم فقال زيارة الأحباب والتقاء الإخوان مع إدخال السرور عليهم محمد بن منقدر بن صحابة لا من التابعين dañ ko laaj ne ko waa sëriñ bi lan moo dàq ci dund gi tey mu ne daje gi ak kenn ku nekk di jéem a dugal mbégte ci xolu moromam te xadaratul jumaa bi keroog am na fa lu leer nañ mooy lan am na ay ponkali muqaddam bàyyi yoo xamante ne jote woon nañ jubale nañ leen keroog ci barke jotaay bi loolu lu rëy la ndax Cheikh Ibrahima Niass si boppam mës naa o ñaari taalibeem bind leen lettre yu xuloo ñaari muqaddamam yu xuloo mu ne leen bool ma deewee fileeg ngoon yéen a ma kon xam nga ne loolu lu garaaw la woon te amoon na ci suñuy diggante ci barkeb jotaay bi dañ na fa keroog yonent yàlla Muhammad nee na Cheikh yi nee ko yi buñ jotee parce que buñ jotee man la ñuy lor te am na ay kilifa yoo xam ne juboowuñ woon ci faydu bi tey ci barkeb jotaay bi keroog di ay Tidiane jubale nañ leen kon yonent yàlla Muhammad sowe nañ ci loraangeem waaye tamit bégloo nañ Mawlaana Cheikh a Niass kon jotaay boobu sax bàyyi dundaat na ci. rawatinaat nag eh, dégg nga eh, aaya rawatina aaya aaya bi nga xamante ne mu ngi ci sooratul anfal nga xamante ne aaya bii moom moo setal wecc wecc wecc wecc xadaratul jumaa bi keroog la 14 moo ko setal wecc wecc wecc wecc ba lépp luñ ci bëgg a corriger amu ci lépp luñ ko bëgg a ŋàññ amu ci lépp luñ ci bëgg a tilimal amu ci aaya bi mooy lan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 yàlla dafa wax ne waa adi waa idu lahum lakum na ngeen napp yéefar yi napp leen seen noon yi nappee leen seen noon yi doole ji ma leen may ba nappaale koo xamante ne seen noon la te yéen xamoo leen ko te yàlla xam ko mu toogoon ca pegg ba di xaar lum leen songe baa di préparer nan lay dalee seen kaw di ngeen nappee gaa yi nappaale ngeen ñoo xamante ne seen noonu leen te xamoo leen te loolu xadar bi def na ko keroog te li la koy wéral mooy aaya bi mu ngi wàcc ginnaaw xaswatu badrin bi aaya bi wàccee yonent bi dafa génn ak jullit simplement dañoo génn simplement yàlla wax yàlla wàccee aaya ne bu leen génnati simplement boo leen di génn génn leen ak seeni doole génn leen ak seeni arme pour yéefar yi xam ne ba tey bëri ngeen ba tey yéen ngi taxaw ñu napp leen te xadara bi keroog ñu génnee fees dell ñëpp xam ña doon wax naan taalibe bàyyi bëri bëri nañ ña doon bëgg a dal suñ kaw danañu moytu te déggaat naa tamit ay nit di ci wax ne dañuy toppandoo waa ba tey toppandoo bonut toppandoo lu bon moo bon waa buñ ko defee waa dina bàyyi def ko ñuy génn ay mbooloo yu jégg dayo ci dëkk bi secte yi ak franc yi nekk ci réew mi di song diine ji bëgg yàq islaamu suuf yi bëgg a tas tariqa yi bëgg a dindi kilifteef ci diine ak ci tariqa bi nga xamante ne seeni seeni seeni mbir la bu ñu génnee ba ci waa Tuubaa tamit génn créer ay journée ay ay ay manifestation religieuse fees dell ci dëkk bi loolu dana dàq noonu dana tiital noonu te dana leen delloo ginnaaw te dana leen utloo yeneen stratégie xam ne ñii ndekete jeexaguñ xam ne ñii ba tey am nañ kilifa xam ne nii ba tey islaamu suuf yi mu ngi ci xol bi dana feeñalaat beneen facette mbooloo ma la fa ëppoon ay ndaw la tey danañ won ne ndawu Sénégal yi tey ñu ngi bëgg yonentu yàlla Muhammad ba tey ñu ngi am kilifa ba tey ñu ngi ronu ci islaamu suuf yi loolu bu fekkoon ne loolu rek la islaam nangu na ko kon képp kuy taxaw ne dañuy wanewu ba tey baax na islam nangu na wanewu kuy wane ne kuy wane wu tamit dañuy dañuy def folklore folklore gisuma ko ci ndax bu xaal bi dajee bu nit ñi yëngatoo leneen feeñ te yàlla moo yonent bi cheikh tidiane cheikh ibrahim ñes wax na ne dégg nga qul lillazi yanha an wajdi ahlihi fa ida lam tazuq macna sharabi alhawa da'na fa inna ida tibna wa taasa uqulana wa xaamirna xamra algharami tahattakna fala talumi sakrana fi xaali sukrihi faqat rufi at taklif fi sukrina anna lolu bayi wax nako ci jaahir rasail bu fekke na wax wali yalla tamit bay indi nako waxam la mune yow mi ngagn hal bu yëngatu bi ba ko folklore ci sunu joto yi ak sunu daje yi mune mang lay wax ne kay bëgg ngagn ŋàññ yi nañu ba nañu ba qul lillazi yanha an wajdi ahlihi kii bañ xaal yëngatu yi ci ñun isa lam tazuq wa sarabil hawa buñ mosul bànneexu bëgg yàlla ci ñun da naa nañ ñu ba fa inna naka ñun isa tib naa bu ñu laabee ba laabal suñ jamono wa tashat uqulana sunu xol yi mar yàlla te hattak naa faw ñu yëngatu falaa tamulu sakraana fi xaali sukrihi bul yeddati mukk ki màndi ci yàlla ci waxtu wi màndee ci yàlla ndax waxtu wow mu nekk dara da ko cee fekkut dara da ko cee topput yépp ko wàcc loolu ko wax kon folklore mooy ku ci dugal lu ci bokkul te jotaay ba keroog yëngu yeeg dal yépp yàlla la kon mënuma gëm ko wax ne folklore la amu ci amu ci kon nag jotaay boobu ci boppam bu fekkee ne dañu wax ne xadaratul juma tamit dégg naa am ñu koy ŋàññi ne xadaratul juma dafa war a fixe amul ci sharia amul ci tariqa bi ndax wax naa leen léegi bu ñu werantee ci tariqa bi nañ dem ci facteur yi facteurs yi ci boppam benn mun yetul murit ñëpp xam nañ ne ku war a am ijaasa dafa war a jàng mun yetul murit ñëpp xam nañ ne mun yetul murit mooy constitution tariqa ya foofu boo ko liiree ba mu daj amul xadara fixe fagara xadara fixe amu ci li ciy sart bi mooy na mbooloo am rek foo ko defee baax na bu la neexee ajjuma bu jot nga déplacé xadara bi yóbbu ko ci quartier yóbbu ko ci stade yóbbu ko ci kon fekk yaa ngi am mbooloo kon ki wax ne xadara dafa war a fixe nañu wax fan la ko jëlee amut ci constitution tariqa bi li ci sart mooy lan na nga am mbooloo wax nañ ko ci munyatul murid laa yustaratu fiihi makaanun xaas ci tariqatu tijaan amul benn barab buñ ne fii kese lañ war a xadaraa amul te déggaat naa tamit ay nit yuy ŋàññi di wax ne dégg nga wasifa ci boppam ne ñaari yoon wér na ñaar yu wérut ci tariqa bi mm-hmm. wasifa vingt quatre heures moo wér ci tariqa bi waxtu woo ko defee baax na te charte bi mooy nga def ko ci mbooloo mm-hmm. boo demee ci Munyatul Murid ñi ngàññi naan dañ ko waroon déplacé ba'da day wax ne ba'da salaatul asri yowmul jumaati yulzamu man yakunu dha dhikri la haylalatun li maghribi wala taaddu wa chartul ijtimaai fiha mu'tamadun ñaari abyaat yooyu lañ la wax ci constitution tariqa bi ñu ne ginnaaw tàkkusaanu ajjuma war na saxal nañ dégg nga zikkar ajjuma ci mbooloo ka ko def nag kenn ngant la bu ko deful kenn du ko fay ka ñëw ci mbooloo mi def ko def na farata ci tariqa bi bu ko deful tamit kenn du ko ko topp waaye charte bi du ñu saxal hadara bi ci benn kër ci benn jotaay waaye chart bi mooy mbooloo nañu doon mbooloo te hadara bi keroog bu fekkee ne lu ñuy corriger la amu ci parce que mbooloo la buñ ko déplacé woon beneen ajuma yóbbaat ko fépp ñu ngi am mbooloo rek Cheikh Tidiane loolu la wax kon ñi corriger bëgg a wax naan nangam ñun nañu wax loolu fan lañ ko jëlee te nag dafa am secret boo xam ne da cee nekk dañu wax ne inna lillahi fil ayami dahri la nafaxaatun alla fatat arradu laha mu ne ci àddunaam gi ci jamonoom gi dafay am bés bu nekk muy def ay promotion muy may ay occasion jaamam yi nga xamante ne dañ leen koy may ci barab yi gis nga xatartul juma bi ak yu mel ni moom ci la bokk yàlla ne allah ngel la waay dem leen ngeen di fekke ji ndax danañ leen ci jéggalee bàkkaar danañ leen ci yombalal lu lu jafe woon ci seen dund ci barke jotaay bi kon man gisuma xatara bii tey dégg nga ku mel ni Cheikh Mouhamadul Amin fekke ko gisuma ndax Cheikh Ibrahima Niass moo ne ko toogal sa kër yow baaba kon bés bu génnee bàyyi moo ne ko génnal sa kër kon fu baaba la min fekkee lu ñuy corriger man gisuma ko fa bu fekkee ne gëm nañ kan mooy alaaji Ibrahima Niass ak waxam bu fekkee ne tamit ci xam-xam la lu fa génnoon lu warut wallahi duñ fa jóg te baaba corriger wu leen ndax def na ko Ahmed Khalifa Niass ba mu ñëwee bëgg naan sàppi suñu jotaay dégg ngeen na bàyyi jëflante ne baaba jëflante moom te yaakaar naa ku fiy wax gënoo doon jullit baaba gënoo kaa doon tiijaan gënoo ko doon walu yàlla ëppoo ko xam-xamu zahir gënoo ko ëppoo ko fit te dàqoo ko jubbanti jaami yàlla yi ci waxtu bu jot nag moo tax nag kon dafa am luñ ci waxaat tamit ma koy tëjee waxtaan bi muy li ñu waxoon ne dañuy wonewu waa baax na bu fekkee ne waa Tiwaawan ni dañuy génn di def xadara ci quartier bu nekk pour wone wu ne taalibe alaaji malik nii la mel ëllëg taalibe bàyyi ñu si génn jëlaat estat bi jëlaat teere yi wone wu ne taalibe bàyyi nii la yel loolu baax na sunna la ci diine ndax xadis bu wér si saxiixul buxaari boo fa demee xadisu jaabir la dañu ne an jaabir ibnu abdullah radiallahu anhu قال كان رسول الله nabi sallallahu صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريقة جابر nee bu julli jotaan yonent yàlla muhammad bu doxee ànd ak mbooloo mi juggu koñ bi ba julli bu pare daf laan digal ne nañ jaaraat beneen koñ mu ne lu tax pour ñu wane ne bëri nañ kon kay buñ ko defee tey hadis la ah hadis la bu fekkee ne rek dañ doon wu sax ba tey gisuma luñ ciy corriger parce que hadis bu wér la hadisu jaabir la saxiixul buxaari la am na beneen hadis tamit dama koy tudd waaye nee nañ wérut waaye bëri ko nettali hadisu muslim la dégg ak ahmad ak dañ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الإيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه أبو ب... أبو هريرة نينا يرنتي على محمد بو جتان بو اندك مبولم جارتي بين بن نينا بوي دبات سي جولي في جارتي بين جار بور ون نيت ني كون بو فكيه نه حضرة الجمعة بي nga xamantene wa kër baye ñe ko defon wati wawon yi di bu fekkee ne wonewu la sunna la bu fekkee ne dañuy wone suñu bëri sunna la waaye bu fekkee ne yëngu da saa am bañ ne folklore folklore amu ci ndax bàyyi ñës wax xel liñ naan dégg nga zinatun lil islaam ndax génnandoo xoolal keroog ni gaa yi génne seen oto yu rafet yi ñu génne xoolal seen sañse yu rafet yooyu ñu génne loolu dana tiital suñ noon xam ne ñii namuñ dara ku yoroon sa alal ba ko corrompé tijaan yeeg taalibe bàyyi da ko téyewaat parce que xam nga ne tey oto yi mu fi génne seen sañseeg seen jotaay yi ñi dara nga téyewaat sa xaalis. Hmm. ñaareel bi danañu tiital noonu boo xamante ne dafa foogoon ne tas nañ tey juboo nañ ànd nañ kon man gis ci jotaay bi luñ ci luñ ciy wax ne sunna bokk ci. dégg nga li izhaari quwatil islam jotaay bi tamit du dara lu dul feeñal dooley islam te lu war la tey ñu nekk nii li tele yi di wone di wane ne ñàkk nañ diine ñàkk nañ tariqa islaamu suufi amatu fi du dëgg suñu jotaay yi da koy feeñal kon war na mm. li ci teg teg mooy qahrul aadaa yi war na ba tey te xadara bi feeñal na ko mooy napp noon yi comme ni ko alquran waxee ci sonatul anfal mm. ñàkk loo leen yaakaar ba pexe ba ñu yëkkati woon pour jëm ci ci islam jëm ci ci monde musulman bi ak jeune ci islam fii ci Sénégal sunu jotaay yi da leen di tiitloo da leen di delloo ginnaaw loolu laa amoon ay éclaircissement yu ma ciy teg di ci tëjee nag ne nit dafa war a dundam ànd ak diine ndax mahmad gandi ndax doomu aadama ci boppam dañ ko mooñaale diine dañ ko mooñaale ak lan al ubudiya mahmad gandi dafa wax benn wax ju am solo daf ne doomu aadama juy dund te dundam àndul ak diine nee na munta nekk mu ne doomu aadama faw mu dund dundam ànd ak diine mu ne doomu aadama guy dund ca dund religion àndu ci dafa mel ni réew mu amul constitution loolu la Mahmad Khan di wax nee na dund gu àndul ak religion dafa mel ni réew mu ànd mu amul constitution mu ne réew mu amul constitution dafa dafa mel ni gaal gu amul gouvernail léegi nag réew mu amul constitution xalaat nga jëyee ya fa nar a am waa gaal gu amul gouvernail amul joow muy tëmb rek ci kaw suuf yenu ay ci kaw géej yenu ay bakkan xalaat nga jëye gi mën a def gis nga doome aadama goo xam ne dundam religion àndu ci jëyee jam war a def moo ëpp gu gaal ga moo ëpp gu réew mu amul euh, euh, kii te constitution kon nag nañu waxtaan te dimbali jeunesse bi képp kuy dimbali l'islam buñ ko ŋàññ nangu nag nag ñuy corriger nit ñi ndax Baay wax na ko la budda min zajril ahbaabi an kulli fi'lin yu xaalifu alqawanin faw ñuy jàjj nag nit ñi di len dankafo pour ñu tek mbir mi ci yoon ak jëf yi nga xamantene mu ngi bëgg wacc top wa salaamu alaykum wa rahmatullah Thank hmm? hmm? you. Hmm?